mbokk yi topp seen chaîne bi di GMTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di am mbégte fas yéene ñëw ànd ak yéen ci émission yi nga xam ne euh, chaîne bi di GMTV moo leen koy amalal di ci jàngat ak nafar lenn ci téere xam-xam yi nga xam ne Serigne Touba moo ko bind ak yeneen fànn. Euh, ñu di ko tuddee daarul maarif al islamiya muy émission boo xam ne day jël lenn ci téere yi sëñ bi di ko jàngat euh, di ko nafaraat ngir ñi nga xam ne euh, jàngoon nañ ko ñu mën ce nafaraat ñi nga xam ne xëy na jàng ñu ko woon ñu mën cee jànge soo ko defee nag ñu jël lenn ci téere yooyu ci fànn yooyu ñu waxoon léegi moo xam tawxid la wala fiq wala tasawuf wala siira euh, ñu fas yéene ñëw ak nag ci fànnu tawxiid muy fànn goo xam ne sëriñ bi bind na ci lu bëree bëri waaye dana ci jël benn téere boo xam ne moom la ñu tàmbalee mu tudd Faydul Ghaniyyil Mughni muy téere boo xam ne sëriñ baa ngi ko bind ci tawxiid euh, xam naa danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu. su ko defee tey nag dañuy def rek benn introduction boo xam ne dañ ciy waxtaane lenn ci xam-xamu tawxiid ak li ci aju muy xam-xam boo xam ne xam-xam bu màgg la boo xam ne mbooleem xeeti xam-xam yépp moo ca gën a màgg euh, su ko defee mooy xam-xam boo xam ne day gëstu ci jëmmi sunu borom ak ay meloom ak ay turam naka noonu malaayika yi ak yonente yi alayhim salaatu wassalaam ak uh, akub dogal ak bis ak téere yi nga xam ne ñoom la sunu borom wàcce woon ci yonente yi alayhi salaatu wassalaam ci yonente yi alayhi salaatu wassalaam kon gis nga ne xam-xam bu am solo la boo xam ne ci li aju moo tax mu am solo noonu su ko defee it am na ay tur yuñ koy woowe bokk na ci ilmu tawxid moo ci gën a siiw waaye am ñu koy woo it ilmul aqida ilmul aqida bokk na ci ay turam naka noonu ilmu usuli diin ilmu usuli diin naka noonu it bokk na ca sunna sunna ñaareel léeg la ñuy wax ko jubli ci xam-xam bii di jàngale tawxid waaye it bokk na ca tur yooyu eh, alfiqhul akbar alfiqhul akbar des na ko tuddee xam-xam bii di xam-xamu pas-pas xam ne suñ ko waxee dañ dañ cey jublu comparé ko ak eh, li ñuy wax fiqhul furuux muy muy al eh, fiqhul asgar kon gis ne gis nga ne am na tur yu bari yuñ koy woowee te borom xam-xam yi dañuy wax ne maanaam mbir su bëree ay tur rek loolu day wane importance am ak njëriñ loo xam ne am na ko te loolu yan la ci ay turam waaye eh, mën na ko ab sax su ko defee ne ni ñu ko waxee woon léegi Euh, dañuy ñëw ci njariñam walla euh, important am ak wàcc wàccuwaayam ci lislaam euh, dañuy wax ne xam-xam bu ne bala ñoo xam njariñam dañu xool ca la muy aju bu ñu xoolee xam-xamu tawxiid nag li tax mu gën a màgg ci xam-xam yi mooy dafa aju ci jëmmi sunu boroom te sunu boroom moo gën a màgg mboolem luy màgg waaw kon moo tax ñu wax ne xam-xamu tawxiid moo gën màgg ci mbooleem xeeti fànni xam-xam yi te loolu boroom xam-xam yu bari wax nañ ko feddali ko ci seeni mbind ku mel ne ibnu ibnu xayim ci téeréem bi mu tuddee i'laamul muwaqqi'in wax na ci lu mel noonu ne wala ma kaana al ilmu lil amali xarinan wa shaafian wa sharafuhu li sharafi maalumihi taabian kaana ashrafu al ulumi ala al itlaaqi ilman tawxid kon loolu muy firnde li ma waxoon léegi rek ne kon xam-xam bi moo gën a màgg ci mbooleem xeeti xam-xam bi naka noonu ku ñu wax ibnu abil izz alxanafi am na téere bu bind di ca sara téere bi ñëw ñu wooye alxaqida alxaqida altaxawiya ca muqaddima ba ca tàmbali ba ma ngi leeral loolu di wane xam-xamu tawxid moo gën a màgg ci mboolem xam-xam yi moo tax mu waxoon ne ilmu usuli diin ashraful ulum id sharaful ilmi bi sharafil maalum wa huwa alfiqhu al akbar bi nisbati ila fiqhi alfurux wa lihada sama abul alimaamu abu hanifa rahmatullahi alayhi maa qaalahu wa jamaahu fi awraqin min usuli diin alfiqh al akbar kon gis nga même tur wi ñëwaat na ci wax jooju ilmu usulu diin ak al fiqhul akbar waaye lim jubloo leeral foofu rek li tax ma indi wax jooju moom rek ne nekkoon xam-xam bi moo gën a màgg ci mbooleem xeet xam-xam yi te loolu buñ delloo ci mbind Serigne Touba radiyallahu anhu dañuy gis mu koy feddali bu baax a baax di wax ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi loolu ma ko wax ca masalikul jinaan ñu wax mboolem xeeti xam-xam yi xam-xamu tawxiid moo ca gën a màgg moo ca gën a màgg moo ca gën waxaat feneen ne hada wa xayrul ilmi yaa dawi l uqul ilmun muqarribun minhu nuqul kal xaqdi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manaafi yi kon loolu mi ngi ko wax ci Munawwirus Sudur di wax ne mbooleem xeeti xam-xam yi yéen waroom xel yi kat ngeen xam ne mooy xam-xam bi jege ñele bi jege ñele yàlla bi lay jege bi lay jege ñele suñu borom mooy xam-xam bi nga xam ne moo lay jege ñele yàlla suñ borom mu indi ci misaal lu mel ne xam-xamu pas-pas tawxiid kan aqdi kan aqdi wal fiqhi kon gis nga xam-xamu tawxiid la la a tudd ba tey waxaat na ne fa wa baadu fa tawxiidu rasul maali ruuxu diinillaahi dil jalaali loolu mi ngi ko wax ci jathbatu sigaar wax ne na nga xam ne kat euh, tawxiid mooy capitalu ab julit te fekkoon ne euh, maanaa diina am am jëmm daa am jëmm kon dañu wax ruuga mooy ruux ruuga mooy mooy mooy tawxiid mooy tawxiid jëmm ji nekk lislaam yër ya muy taaroo nekk al ihsaan kon bu fekkee ruugi mooy tawxid kon day wane ne mooy li ci am solo nax euh, nit bu naan nit ruuga moo tax waaye sa yu ca ruuga rek dootu tudd nit dootu tudd lay tudd kon gis nga kon euh, ni mu amee solo moom xam-xam boobu ba tey na ne lakin ma tawxidu xayru duxri li shaxsi fi l qabri wa yowm an li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufidu ilmun musjala di wax ne xam-xamu tawxid mooy li gën ci li nit ki denc bu ëllëgee yowmal qiyaam ngir yóbbuloo ko lépp lu ñu yóbbuloo yowmal qiyaam di ko denc xam-xamu tawxid moo ci gën moo xam ci bàmmeel la wala ëllëg yowmal qiyaam bu ñu taxawee ci kanam suñu borom ndax kat mu ne mooy xam-xam boo xam ne maanaam boo ci yemee mën naa wuut mbooleem xeeti xam-xam yëpp waaye nag benn xam-xam mun koo wutu waaw li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufidu ilmun musjala kon gis nga yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko di ci wane eh, gëneel li am ci xam-xamu tawxiid ak ak palaasam ak wàccuwaayam ci lislaam di wane ne mooy xam-xam bi war a jiitu te su baaxee lépp baax waaye bu baaxut moom wala iyaatu billah dara du baax kon gannaaw bañ euh, waxee ay turam wax euh, wàccuwaayam ci lislaam ñu ñëw nag fii denkaane yi nga xam ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu daana ko dénkaane ngir di soññ nit ñi ñu yittewoo xam-xam bi di ko jàng waaye di ko jëfee di ko pratiquer bokk na ca euh, dénkaane yooyu moo wax ne li njëkk ci ab taalibe li njëkk war ci ab taalibe li njëkk war ci mooy mu fexe bi am mu am yóbbal bu mat mu fexe ba am yóbbal bu mat ci xam-xamu tawxiid waaw balaa soxlawoo di wéet di jaamu yàlla ak di tudd yàlla wala muy jaxar bakkanam su ko defee nag mu suubu yoon wi nga xam ne mooy yoonu ahlu sunna wal jamaa ndax kan mu ne maanaam pas-pas bu fekkee dafa tegu ci ay bidaa nekkut teguwut ci xam bu leer ci xam-xam bu leer kon maanaam day nekk ay day nekk ay lëndëm yoo xam ne ñooy baare leer yi nga xam ne moo war a juddoo ci topp sunna maanaam ci pas ba sunna pas ba sunna daa daa am am maanaam leer ci juddoo fekkee nit ki pas-pasam daa daa daa di kon day baare leer yi nga xam ne ñoo war a juddoo ci topp sunna maanaam ci topp pas-pas sunna wala boog ci fas fas ci pas-pas sunna waaw moo wax ne awalu waajibin ala almuridi taxsilu zaadihi min altawxidi qabla ishtigaalihi bilinfiraadi bi dikri waxdahu wa biljihaadi muntahijan madhaba ahli sunna maa aljamaati wa tilka aljunna id dulumaatu bidaati ixtiqaadi takufu anwaar itibaaci alhaadi kon lanam lanam lanam mi topp bidaa day fekk day baare leeri topp topp sunna loolu mi ngi ko wax ci tasawudu shubaan ba tey waxaat na feneen ne wala yalaman kullu zakiyin wa balid an alladi yuxaalifu alxaq torid ne képp ku yeew wala nga gàtt xel na xam ne kat ku ku wuute ak dëgg wuute dëgg dañ lay daq maanaam doo am na nga bëgg mais mel na dañ koo laaj ne ko dëgg mooy lan mu ne wal xaqu badul abdi bi tawxidi wal an tasawufin majidi muntahijal madhaba ahli sunna maa aljamaati wa maa aljamaati wa tilka aljunna waaye kon dëgg mooy jaam bi lépp lu muy def mu tàmbulee ko xam-xamu tawxid fexe ba am yóbbal kon ni ma waxe woon léegi ba am yóbbal bu doy bu duun ci xam-xamu tawxid gannaaw bu mu teg ci fiq mooy ni ñu xamee jaamu yàlla yi dañ ko war a jëfee mu xam ko naka noonu boo la tasawuf mooy fexe ba sellal te yàlla rek tax ñetti yooyu mooy xaaji diine su ko defee nag mu suubu ngir mi nga xam ne moom a la ahlu sunna wal jamaa rëdd su ko defee loolu mooy nekk ab pakkam boo xam ne moo koy musal ci sawara lépp lu bon kon gis nga ne euh, foofu mi ngi ciy bu baax ci euh, yittewoo xam-xamu tawxiid di ko denkaane di ko dénk taalibe yi loolu mi ngi ciy maxaalixu niiraan ba tey waxaan na ne ida btada al muridu bi tawxiidi wal fiqihi wa tasawufi al majidi muntahijan madhab ahli sunna maa aljamaati najaa min fitna loolu mi ngi ko wax ci zaadu dawi taallum te gis nga ne même même wax ji lay baamuwaat rek ñetti wax yi wax na ko baamu ko ci ñetti béréb yi wuute lépp rek ngir feddali ko war na ne nit ki daa war a fexe ba ab yóbbalam ci tawxiid nekk yóbbal boo am solo su ko defee nag lépp lu mu cay teg mu door ko cay teg su ko defee nag mu suubu maanaam yoon wi nga xam ne mooy yoon ahlu sunna wal jamaa ci pas-pas ndax xam naa dana ci ñëw euh, lislaam dafa bari ay ay firaq ay ay ay yoo xam ne dañoo am ay wuute ci pas-pas waaye ahlu sunna wal jamaa ñoo nga xam ne seen pas-pas moo dëppook pas-pas bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale kon murid bi gëstu xam-xam tawhid war fexe ba la muy gëstu dëppoog euh, ngirum ahlu sunna wal jamaa te ci ngir moom la sëriñ bi taalif mboolem téere yi nga xam ne moom la bind ci tawxid waaw kon euh, ba tey waxaan na ne li gën a kawe ci maqaama yi ci jamono ji fa borom mooy fexe ba dëkkal dëkkal gëm yàlla ci sa xol li gën a kawe ci maqaama yi ci sun borom ci jamono ji ñu toll mooy jamono ju jamono jamono moom ba ci jamono ji ñu toll yëpp mooy fexe ba sa xol nga dëkkal ci wéetal yàlla moom lay wax ne ala almaqamati inda allahi fi hada alzamani iskaanu tawxidi fi lqalb alxaqu yartafiu fi rafii ila ala darajati fi aliyin fi aliyin walbaatilu yanxafidu bi xafdi alxaafidi ila asfali daraki al asfali min annaar gis nga kon yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne daf koy wax ngir dénk di dénk jullit ñi taalibe yi ñu yittewoo xam-xam tawxid loolu mi ngi ci al majmuatu soora ba te waxaat na ne digal naa man sëriñ bi képp koo xam ne aju na ci man dib bi moo xam góor la wala jigéen te yàlla rek tax nga dem nga dem xam lu ji mboolem xeeti xam-xam yi jàngale pas-pas wala yi jàngale pas ak la ci aju ak lu aju ci àttey laab ak julli ak woor ak yu mel na ñoom ci lépp loo xam ne war na ci mu kallaf daal di wax ne nag man warlul naa leen bindal leen ay téere yoo xam ne mboolem loolu lépp daf cay nekk ngir jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala moom la wax ne fa inni amartu kulla man taala kulla man taallaq biya min al muridina wal li wajhi llahi taala karim bi taallumi al aqaaidi wa tawxidi wa ahkaami taharati wa salaati والصيام وغيرها من كل ما يجب على على المكلف وإني تكفلت لكم ولكن بتوالي فيكون فيها جميع ذلك لوجه الله تعالى الكريم wasalaamaaleykum wa rahmatullah loolu ab la bu gudd boo xam ne lii ci euh, boo demee ca Irwa u Nadim maa nga ca sëñ di wax ne digal naa képp ku aju ci man moo xam góor la wala jigéen mu fexe ba jàng li mu war a jàngal jël la ci jiitu nag mooy mu jàng xam-xam tawhiid ak la ci aju gannaaw ba mu tudd yooyu muy tudd daal ne nag warul naa leen kon ay téere yoo xam ne lépp lu ngeen soxla woo ci fànn yooyu dana ci nekk loolu wax na ko waaye ni mu ko waxee noonu la ko defee kon moo tax dañuy daal di ñëw ci téere yi nga xam ne moom la bind rawat na yem bind ci xam-xamu tawxiid muy téere yoo xam ne bari na bari goo xam ne euh, moom mënees naa wax ne lim bind ci xam-xamu tawxiid bind ko ci geneen fànn ci liñ ci liñ xam Euh, bokk na ci téere yooyu mawaahibul quddus fi nazmi nasri cheikhina sanusi mooy téere boo xam ne daf ko waay waaye ca téere bu ñuy tuddee wala boog lenn ci téere yi nga xam ne al imaamu sanusi moo ko wayoon moo ko wesaroon sëñ bi jël ko waay ko tuddee ko mawaahibul quddus muy téere boo xam ne moom ñu bari xam nañ ko mool nañ ko ay yoon muy muy téere bu tasaaroo waaye it bokk na ci téere yooyu fatxul fattaax al alimi al fi bathi ilmin yu addi ila al ajri al kabir muy téere boo xam ne daf ko way way ci téere bu ñu wooye ummil barahin ummul barahin moom it alimaam alimaamu sanusi moom moo ko way moo ko wesar ko sëñ bi jël ko way ko tudde ko fatxul fattaax al alimi fi bathi ilmin yu addi ila ila al ba tey am na beneen téere bu alimaamu Sanusi moom def euh, tuddee ko al aqida al xafida ñenn ñi di ko wooye suxra suxra suxra sëñ bi jël na ko waaye ko moom kon gis nga ne ñetti ñettangoog ñetti téere yoo xam ne sëñ bi way na ko jagleel ko téere alimaamu Sanusi rahimahullah ba tey am na beneen bu ñuy tuddee al xidmatul mutahira wal urjuus al mumahira moom it ay way yoo xam ne sëñ bi ko way ci tawxiid muy téere bu am solo boo xam ne indi na ci yu bari ci fànn gi di ko leeral moom it euh, ci yooyu la bokk waaye ba tey bokk na ci faydul alim al xabir fii ma la yustawna anhu min tawxiid moom it boo déggee tur rek automatiquement da ngay xam ne kon ci xam tawxiid la jëm waaye ba tey bokk na ci maraaxil am ni wa saada ila ala al qurbi wal ibada ñenn ñi di ko tudde saada moom it lenn la ci yi nga xam ne sëriñ bi moo ko way ci xam-xamu tawxid ba tey bokk na ca jamcul maqaamaat allati farra ilayha al qawm fi charxi qasidati la taaxuduhu sinatu wala nawm moom euh, ay way la yoo xam ne sëriñ bi ko def ci fànn gii ñu wax muy xam-xamu tawxid moom it xëy na tax ko gudd waaye téere bu am solo la ba tey bokk na ca faydul ganiyil muxni fii maani suluki yuxni moom téere la boo xam ne sëñ bi ko way waaye ca muqaddima bi nekk ci risaala eh, risaala bi nga xam ne ibnu abi zayd al xayrawaani moo ko taalif ci xam-xamu fiq waaye daf ko tàmbalee eh, muqaddima boo am solo boo xam ne daf cee leeral xam-xamu tawxiid ak la ci aju moom la sëñ bi jël nag waay ko tuddee ko faydul ganiyil mughni fii maani suluk yughni te incha allah téere boobu moom moom lañ fas yéenee ànd ak yéen bu soobee yàlla di ko nafar di fas yéenee yàlla di ñaan yàlla mu jëriñ ñu ci jëriñ ci mboolem ñu koy bokk na ca euh, nadmul jawahir alxisaan fi maarifati arkaanil imaan euh, téere boobu ku ñu wax. Euh, ku ñuy wax arbabul moo ko way tuddee ko aljawahir alxisaan fi maarifati arkaanil imaan muy téere boo xam ne sëñ bi daf ko yittewoo lool ndax way na ko ay yoon yu bëree bëri yu kon mm, téere la bu am boo xam ne sëñ bi joxoon na ko yitte yitte ju bokk na ca euh, wayam ko way way wu tàmbulee ci xaala li wajhillahi abduhul xadim lahu llahu bi qad yaduum ba tey bokk na ca euh, way bi tàmbulee alhamdulilah alladi man qasada rida ridaahu xama xamaahu amman rasada ba tey bokk na ca jathbatu sigaar an laibin li xidmatil muxtaar moom ñu bëri ñu bëri xam nañ ko moom it sëñ bi daf koo ci téere boobu téere boobu ñu ba tey bokk na ca xaaj bi njëkk Euh, tasawulu sixaar xam ngeen ne tasawulu sixaar xaaj la xaaj bu aju ci tawxid pas-pas ak bu aju ci fiq am bu aju ci tasawuf waaye xaaj bu njëkk bi sëñ baa ngi ko way way ci téere boobu téere boobu ñu wax léegi ba tey xaaj bu njëkk ci tasawulu suban xam ngeen ñaari téere yu daanaka mm, benn li ñu wut rek mooy tasawulu subaan daa gën a yaatu tasawulu sixaar waaye ñoo bokk lu ñu wax waaye it xaaj bu xaaj bu njëkk boobu moom it aju ci tawxid sëñ baa ngi ci woyee téere boobu kon gis nga ne eh, téere yi yëpp ñu wax léegi ñu mujj wax léegi yëpp sëñ baa ko woyee woye ci téere boobu tudd al jawahir al xisaan fi maarifati arkaanil iman muy wane kon yitte joo xam ne sëñ bi joxoon na ko téere boobu eh, kon loolu ci gàttal mooy eh, téere yi nga xam ne sëñ bi woye na ko ci xam-xamu tawxiid yi nga xam ne jot nañ ko xam te it wóor na ma ne des na yu bëree bëri yoo xam ne xamuñu ko loolu day wane mm. nu ko sëñ bi joxe woon yitte eh, ngir nit ñi bàyyi ko xel ko jàng ngir ni ma ko waxee woon ci ginnaaw day loo xam ne su baaxee lépp bu baax waaye su baaxut dara du baax ndax day mel ni fondement rek fondement su baaxee loo bëgg loo ci bëgg teg mën nga ko caa teg waaye bu dëgërul loo ci degg day màbbu wala billah kon Euh, kon nag yàlla dogal na téere yëpp nag mool nañ ko yi ma wax yëpp mool nañ ko ci benn téere bu ñu wooyee diwaanul ulum ad diiniya ko xam ne yitewoo woona ko mën na ko fekk ci marché bi ñu ngi koy jaay euh, naka noonu am na si yoo xam ne mool nañ ko moom rek mu bero lu mel ne mawaahibul quddus mool nañ ko lu mel ne faydul ganiyil mughni mool nañ ko ak sala bi ñuy wooyee al mughni fi ma faydul ganiyil mughni moom it kooku bëgg mi ngi ci jaay ko téere yi kon ñu ñëw ci nag euh, kon ñu ñëw ci mm, sëriñ bi nim ni mu ko léegi yoonu wala boo xam-xamu tawxiid dafa bari ay wuute yu ci am waaye moom lim lim ci bind lépp daf ko euh, daf ko maanaa sukkandiku ci euh, madhab bi ñuy wax al madhabul ashari muy benn ci ñetti madhab madhab yi nga xam ne ñoo tënk ahlu sunna wal almadhabul ashari benn la ci yooyu euh, te loolu buñ delloo ci mbindam dañuy gis muy wala wax lu mel noonu bokk na ci la sëñ Bachir wax ci minan moo wax ne hada wa inil yowma du ridaai billahi rabban xoqa bi thanaa'i wa bi huda alislaami diinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyan wa rasul wa bi kitaabihi wa baytihi dalil wa xiblatan lastu li gayriha amil wa bi aqaaidi sanusi sharif aqaaidan fi xaqi rabbina latif foofu li shahid bi rek mooy li mu a wax maanaam wa bi aqaaidi sanusi sharif kon day wane ne kon moom ab delluwaayam ci xam-xamu tawxid mooy ngirum al imam al ashari abul xasan al ashari ndax ki mu tudd fii ci baydu bi muy dafa bokk kenn jëkk kàngam yi nga xam ne al madhab al ashari moo ba ko naaru gànnaar ba di waaye daf ko wax ne wa min naxwika al manxuwi naxwu bni malikin wa min aqdika al maquudi aqdu al ashaari xam ne kon ci wàllum pas-pas ngi ko askane ci pas-pas bi al ashaari al yi nga xam ne ñoo bokk ci madhab al ashari yi bind su ko li ma waxoon léegi ci ci ne euh, ahlu sunna wal jamaa ñetti ñoo ko seq mooy al ashaira ak al maturidiya ak al athariya loolu borom xam-xam yu bari wax nañ ko te it mooy eh, li ëpp ci borom xam-xam yi jàpp donte xëy na am na nag ñu bëgg a jël madhab al sunna wal jamaa bokk féet li seen bopp waaye loolu moom wax dëgg du du nekk lu yomb moo tax ku ñu wax al alaama safarini al hanbali yi waxoon ci téere bi mu tudde lawaamix lawaamixu lawaamihul anwaar al bahiya wax ne ñetti kuréel yooyu muy al ashaira wal maturidiya wal wal athariya euh, wuute wuñ ci seeni seeni cosaan li ñuy xool usul wala qat'iyaat wuute wuñ ci li ñu rek mooy xëy na bànqaas yi ak ak yi te loolu moom lu lu normal la mhm. moo tax sëriñ bi daan dénkaane ni mu waxoon ci ginnaaw muy dénkaane ñu tënku ci mazhab ahlu sunna wal jamaa wax na ko ci béréb yu yu wuute ba dee bokk na ci li mu waxoon ne yaa maxsara subaani in xiftum xajal faqaddimu taaluman ala amal faqaddimu al aqaida sunniya mujaradatin an firan wa mirya kon al sunniya mooy euh, pas-pas nga xam ne moo dëppoog euh, ngirum ahlu sunna wal jamaa ba tey waxoon na laa tatruki al aqaida sunniya wa laazimi al ibadata mardiya kon gis nga yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne daf koy wax ngir soññ nit ñi ñu tënku ci madhab ahlu sunna wal jamaa noonu mu ko waxee nag moom ci boppam noonu la ko jëfee yar ci taalibi yar yar ci njaboot gi ba ku yar ba noppi ci yow da ngay am xam-xamu tawxiid bu wóor bu sell boo xam ne da ngay teg suñu borom fu kawe foo xam ne doo ko bokkale dara xam naa ci gàttal loolu moo nekkoon introduction bi tey incha allah bu yàlla dogalee ñu ñëwaat danañ tàmbali bi soo soobee yàlla ñu ngi ñaan suñu borom defal leen tawfiq defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم